midi sënk moo jot ci studio King FM Midi Culture asalaamaaleykum. Midi coow la amoon ca Medinatu Salaam kon te ñu faatoon fa ñaari cantaakun àtte ba daanu na juge ba nekk kon ca tribunal grande instance bu Mbour nee na Cheikh Béthio fukki ati kaso yu mu yu ak euh, liggéey bu mu sañul bañ lañ koy euh, tëj di dégg maître Ousmane Sey di kenn ci avocat ya layool ci biir Midi Culture fekk boobu kon commission bi doon saytu weer wi euh, te Iyane Thiam jiite ko nee kon gisuñu weer wi ba tax ëllëg ci talaata ji la ñuy banlieue ba taxit mu ëlëm loolu askan wa bañ cay joxañ baaraamu tuuma ñi la di euh, takk der ya sigi coor sigi euh, coor moom askan wa def jéego yu am solo ci euh, xeexum siburu li mbokk yàkk leneen buñ ci noppee dinañ ci boole yeneen i ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci midi culture xëy xibaar yi dàkk cosaan yi pàcc bu yaatu leen ci ci bil buñ ko faram-fàccee ba noppi ki midi culture day buur ñu ñaanalante daaw da gay moo nekk ci machine bi midi culture Kati Ndiaye lañ ci àndal ci faram-fàcce koy doore kon ak euh, Mbour ak kon la fa xewoon ca Medinatu Salaam atuma 2012 mu mel ni àtte ba daanu na. àtte ba nag na ba tax na kii di euh, juge bi nag moom mi lay fi mu ne daal dinay jox kii di euh, Cheikh Béthio Thioune fukki atu prison waaye itamit boole kook travaux forcés maanaam ay liggéey yoo xamante ne sañu ko bañ. dañuy woyal ci mbir moomee ak kon kenn ci avocat yi koy layool moom Cheikh Béthio Thioune. avocat wam bi leen nag defee ñu ngi daal xamle ni verdict bi le ñoom ah, nanguwunu ko benn yoon ndaxte eh, li ni mel nag waruñu koo teg ki nga xamante ni moom moo di ah, Cheikh Béthio Thioune ñu bàyyi leen rek ngeen teewlu avocat wam bi man comme Cheikh Béthio rek laa doon défendre euh, nee na condamné nañ ko fukki at mhm. travaux forcés mhm. euh, pour complicité meurtre maanaam euh, dafa dimbale ñi nga xam ne def jëf ju ñaaw jooju medinatul salaam xam nga sénégal moom kenn gëmatul kenn mais xam nga justice kenn du ko fen kenn du ko nax euh, sëñ bi dafa am euh, ay dossier médical boo xam ne ay médecin yu nekk France ñoo ko bind attesté ne dafa feebar soo muy dem di faju ji boobu xamul ne sax dinañ àtte yi fi ci ginnaawam parce que mois de janvier ba léegi mu nga boddoo hospitalisé mënul jël avion pour ñëw looloo tax fekkeewul procès mais sëriñ bi ko euh, sëñ Béthio ku ko xam xam ne du daw justice yu donc loolu laa bëggoon mu leer dawul. léegi moom ginnaaw ba mu yëgee bi lépp ndogal ani lan moo doon gis-gisam ci loolee. li ñu mën a xam daal mooy juge bi bi mu dëgalee dogal boobu aussi nee na euh, mënul tëdd kaso. ndax yaramam neexut ca mag la. loolu euh, ñu ngi koy rafetlu. mais euh, li ñu ko teg daan biñ ko teg. ne dafa dimbalee ñi nga xam ne ñoo rey. loolu moom nanguwuñ ko. ci amul benn élément ci dossier bi. buy wane ne. Cheikh Béthio yëgoon na jëf yooyu bu ñu koy def. bi ñuy rey ñooñu ñu ngi jaale seen i njaboot. neexut mais amul benn dossier boo xam ne benn élément boo xam ne wane na ne moom yëgoon na ko fekkee na ko wala dimbale na ñi nga xam ne ñoo doon def def mu nekkoon kàddu yi maître Ousmane sey eh, di kenn ci avocat yi layool eh, Cheikh Béthio Thioune doon kon ak eh, Penda Badji dañuy wéyal kat yi njaay ci midi culture wax tamit koor gi nga xam si am nañu ko door. weeru koor gi tàmbali na ci ab xaajaloo ñii di commission nationale de concertation et d' observation du croissant lunaire bi ëmb tarixa yi ci réew mi yëpp waaye itamit kii di Iyane Thiam jiito ko xam ne nañ démb koor gi talaata juróom-ñaari fan ci weeru mai nu koy daal di tàmbali waaye ñii di coordination des musulmans ñoom tàmbali nañu seen weeru koor euh, tey ji mu ngi noonu kon dañuy woyal wax ci leneen rawatina ñàkkum kaaraange gi nga xam si euh, ëlëm na lool ña yeewoo ca banlieue bu Ndakaaru lëmbe na foofu ba tax na agression ya bëri na fa loolu ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan wa fay yeewoo dem nañ sax ba mbir mi yëngalatu leen waaye it am na ñu jàpp ni euh, takku der yi nag ñoom ñoo deful seen liggéey reportage bi nag kii di Serigne Saliou Seck moo nu ko defal katu ñawte fi wéy di nek buura di nek bu mi ci banlieue bu dakaru tax askan wa fa yeewoo nelawatuñu bayandoor ca mbaaw mom Moussa Sis li mu ñu xamal modi di katu ñawte fi ci biir forêt ba lañuy nek la forêt classée la ñepp xam nañ ko ñepp ang koy rom tout un chacun mun na ñew réfugié wu ci biir ñu nek fofu ci biir forêt bi te alkaate yi duñ dugg ci biir forêt bi fekk leen bi te ñom leer na leen ni ñom ñi ngi ci biir forêt bi di secteur bo kon dañu war di ratisser fofu forêt bi parce que Kër Massar dal ni mel mom rëb na Ablaye Sarr mom nee ñi ag agressé dafa fekk ni amuñum xey nanguwu ñoo liggéey ba nopet bëgg xaaliss éducation bi doxul ñu doxé ñu bari dañuy téla bayyi jang jàng bi ci dess moy duñ top seen métier bam ki té te bëgg nañ teranga comme ñu ko ñëpp bëggé lay na duñ am benn solution lu dul jëma xol rek nu ñu mëna a alal ñu mu mer ba foot mustapha di joxoñ baramu tuuma tak der yi suñu police liggéeyul suñu gendarmerie liggéey dañuy bayyi ba ndogol am ñu dogo dal ci kaw nit ñi di ray seen bop te lool du sens doomu aram bu fekkente ni nga yor kaaraangeem guddi bëccëg suba ak ngon dang ko war di aar mais fi nga taxaw amul sécurité fekkante ni brigade ba dañ ko chargé ba mu fees dell ak ay semis te defuñu la leen war am sens. moom gis ni askan wi ci boppam ñoo war a jàppale police bi ak gendarmerie bi. population bi fi nekk bari na bari boo a mën a jàppale pour si ay renfort yu am solo yu am doole si brigade bi ñu yokkoor gendarmerie may leen renfort may leen doole leen ba nga xam ne agression bi nga xam ne moom la gis ci forêt bi ak ci biir kër yi lu ci mën di am daal waa banlieue bi nee nañ sonn nañ ci defkatu ñaawteef gën a dëgëral seen taxawaay. dañuy bàyyi kaaraange kon wax ci wàllum wér-gu-yaram ak euh, diwaanu Ziguinchor jéego yu am solo lañ def ci xeex sibiru Ziguinchor bokk ci dëkk yi dafay jéego yu bëri ci wàllum xeex euh, paludisme maanaam sibiru ci atub 2017 nag nemmeeku woon nañu fa lu tolloo ko juróomi doomu aadama yu ñàkk seen bakkan ndax euh, feebar bi waaye itam caat mi gis nañu ay avancement yi ndax ñaari doomu aadama rek la ñu ci nemmeeku ñu ñàkk seenu bakkan jéego yi ni mel nag su amee li ko waral rek moom mooy liggéeyu waa secteur de la santé bu Ziguinchor nanu leen bàyyi Ngentewlu euh, leralu colonel Maoudo Malick Diop médecin chef bu euh, district sanitaire bu Ziguinchor ci micro Angel Sec comme ni ñu ko wane ci résultat yi bon gis nañ ci ay jéego yu am solo parce que maladie ñu gën gën a ko ñu ngi gën a wàññeeku bon ni doon dee aussi pour paludisme ñu ngi gën a wàññeeku ne woon naa daaw cinq personnes ñu ci dee woon ren ji ñaar ñoo ci dee daaw amoon na presque 4000 personnes yo xamanteni ni ñoo amoon ñoo ñoo ñoo palu ren wàcc na ba ci ay 3000 donc te am na ci ay districts yoo xamante ni sax vraiment taxu ko demee noonu mu mel ay Oussouye yu mel ne ay Tonkesil vraiment nekk na ay districts yoo xamante ni si foofu mën nañ yaakaar ne bu fekkee effort yi ñuy def ñu ngi koy maintenir donc mën nañ dem ba egg ci euh, egg ci élimination bi quoi donc li ñu bëgg daal mooy que vraiment euh, nit ñi dem jëli seen moustiquaires yi ba pare utiliser seen moustiquaire tëdd ci moustiquaire parce que gis nañ ne vraiment bu ñu tëddee ci moustiquaire rek dina tax ba vraiment feebar bi dootul kenn mën na dem ba sax dootul amati suñu suñu suñu région. nekkoon kaddu yu colonel Maodo Malick Diop di médecin chef kon foofee ca district sanitaire bu nekk ca Ziguinchor doon àddoo ci micro sunu naataango ba nu fa teewal di euh, Angel Seck ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci King FM midi moo jot ba tegal juróom-ñeenti simili.

doomi aadama ñàkk seen bakkan ci ab atterrissage Corombare Ndiaye moom defal li ni mel. Niger juróom fukki nit ak juróom ñoo ñak seen bakkan ginnaaw ba camion citerne bu essence dal di exploser fu soriwul dara aéroport bu Niamey bu ñu ci RFI ñi nga xamanteni ñom ñoo di victime yi ñenn ci ñom sax dañu don euh, essence bi bi nga explosion bi amna ci euh, guddi gi ñu wax ni sax lu tolloo fanwer ci ay doomu adama ci ay gañu gañu nañu l'hôpital ci France France telecom mi nga ci atum 2013 le tudd Orange n'yom sax dañ leen di jugé niki altine gi tey liñ leen di toppee di harcèlement moral à grande échelle ñu wax ni ci 2008 ak 2009 lu tolloo ko fanweeri nit ak juróom yu fa doon liggéeyee ñoom ñi dañoo daal di xaru ndax nekkin bu euh, metti ñu wax sax ni entreprise bi lee bokk na ci liste prévenu yi ndax mom la ñu personne morale ci yëf yi DJ Lombard mi nga xamante ne France Telecom. ci 2005 jàpp 2010 mom dina ànd

bu mouvement islamiste bu Hamas mom dal dina mbir euh, Munimel, responsable itamit bo xamante mom ci wa Égypte le fété nam bugu la wax touram mom deugal na accord bi nga xamanteni signé nañ ko ci diggante ñaari dëkk yi le ñu ko ci Moscou nga xamanteni ap atterrissage d'urgence mo fa Lunimel di am lu mel sax tax ba ñeent fukki nit ak ben ñak sen bakkan mi ngi amé ci tarmac bu aéroport Moscou fanweeri nit ak juróom-ñaar ñom ñoo dal di am gaañu gaañu ñaar ñi sax seen yëf metti lool ndax ñi ngi ci état bu grave ñoom sax ñu yóbbu leen ca l'hôpital président bu Russie bi lee di Vladimir Poutine moom sax jébbal na ay njaalam ci njabootu ñi nga xamante ne ñoom ñoo lorule ab l'enquête ubbi nañu ko ngir xam lu waral mbir mi di ko jaajëfal bu baax a baax moom Thioro Mbar Ndiaye doon faram fàcceel xibaaru biti réew yi 12h12 ci King ñu ubbil leen pàcc bi nu jagle la aada ak cosaan. xibaaru caada yu wér te wóor. Kati Ndiaye dañ koy tàmbalee kon ak jëwriñ ji sàllo wàllum aada ak cosaan ci réewum Côte d'Ivoire mu mel ni kon ngan la naraam fii nii ci diwaanu Ndakaaru. moom mi la nag ñëw na ba tax na daal di dem foofu la ca euh, Sinecap kii di producteur bu Sinecap di wéy turu Ousmane Sall nag daal dina koy delloo njëkkal ci set bi waaye tamit ci participation wu Côte ci wàllum financement wu film bi lay atlantique bu Mati Diop nga xamantene dañu ko daldi di sélectionné ci compétition officielle bu festival de Cannes ñu war ko amal nak niki euh, fukki fan ak ñeent japp ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mais biñu jëm dekk nañu ko suñu micro mom Omar Sall ki def nak mom mo di euh, Pape Madiakhaté Sarr machine mënul ñëw déplacer wu pour xol nu ñu nekkee ak nu ñu toogee. kon tay bu euh, suñu xarit bi di Maurice Bandaman joggé Côte d'Ivoire ñëw and ak Ablaye Diop euh, excellence Abdoulaye Diop ministre de la culture bu bu Sénégal ñu ñëw pour xool nous nous toogee euh, waxtaanaal échangeal waale weccoo ay xalaat ak technicien yi nga xam ne ñoo liggéey film bi rawatina que ni Côte d'Ivoire dafa jël koppar dugal si Afrique day jàppale Afrique ndax Côte d'Ivoire groupe Afrique la jàppale film bi euh, c'est un élément du patrimoine national parce que droit est fixé sur ce territoire africain grâce à ses apports c'est-à-dire ses fonds de souveraineté que ce soit le FOPICA que ce soit le SIC de la Côte d'Ivoire donc il faut que nous ni ñuy rendre digne kon bu ñëwee dolli sàkk ñëw nous jéggo les li ñuy def ñun daf ko daf ko gëm te Afrique dafa aussi bàyyi xel si li ñuy mi ngi noonu kon nekkoon uh, kàddu yi uh, Omar Sall jëmale ko ci uh, li ñu si ne Cap dañuy wax ci leneen wàllum ak cosaan ba tey ak li ñu duppee ñafrang mbir la nag moo xam si ca Sigicoor lañ koy amalee rawatina tamit ut ay pexe jëmale ko ca gox yi nga xam si li leen di wàllum xeex dafa da leen laal bu baax a baax. li waral rek ñu taxawal festival bi lay moom moo di euh, ngir indi rek mbégte waaye it cosaan ak aada fi nga xamante ni mooy yenn zone yi euh, coowal am bu baax a baax foofule ca Ziguinchor lu tollook nag ñetti fan ay artistes yu jóge fépp ci addina bi ñëw ànd ak seeni fan fans seen i mbokk rek ngir wone li nga xamante ni moom moo di cosaan ak aada bi nekk ca département bu euh, Bignona Angel Seck moo nu fa teewaloon. ñetteeli édition wu bi wu na aman nañu ko ci teewaayu doomu Casamance yi fiit féete ci tugal mu doon ab ndaje caada boo xam ne weccente lañu fa jiital Malal Ndiaye mooy directeur artistique humanitaire bu Niafran. mooy festival bi nga xamante ni ku nekk da ngay ñëw indi lenn pour gox bi nga xam ne mooy ñafran parce que gox bi dañu gis ne fu mu toll nii mooy gox bu nekk si biir si biir Casamance la te daf ko soxla nu mu ko soxlaa mooy boo xoolee gox bi courant sax amul dajaloo xam ne mooy Kéba mooy initiateur bi mu ne man ku nekk nga xam ne li nga mën a indi ñu yóbbu ko Niafran pour ñu mun a def festival bi te comme ñun ay culturel lañu li ñu mun a jàpp mooy ci aada ak cosaan aada ak cosaan boobu la ñu mun a jàpp pour fexe Niafran jëm ci kanam. ay artistes jóge nañu fu ne ci àddina bi ngir teewee bés bi ci kaw loolu amal nañu fa atelier de formation ci pecc ak woy sekk ko ak seeni naataango artistes yi féete ci réew mi. tey jii xelam màtt màcc na ci wàllu lépp loo xam ne technique la mu ñëw jàngal ko ñooñu am na comme tey compagnie Bakalama lépp luy wàllu fecc ak aada ak yëpp seen sel seen xel màcc na si ñoom aussi ñu ñëw indi Kéba ki nga xamante ni mu ngi Angleterre lépp lu mu am comme matériel ak yëpp jàppale moom aussi mu indi. ndajeem caada boobu am na solo ba tax na meeru Kataba 1 jàpp ne bokk na ci xew-xew yi ñuy gën a fulaal bis ni ki tay Angel Seck doon jokkoog yéen ci Ziguinchor pour rajo King FM. cant ak ngërëm ñeel ko bu baax a baax Angel Seck kon di sunu ndaw la nu nekkal ca Ziguinchor dañuy woyal kon ca aada ak cosaan ba léegi ci midi culture ak bukkut di tamit mbir moo xam si ñi leen di sun mbokk joola yi ñoo koy def ñoom ñoo koy daal di def rek ngir daal di ndaw ñu góor ñi ci wàllum adolescence dugal leen ci âge adulte mu nekk nag benn pratique boo xamante ni dañ koy gis bu baax a baax ci et ni joola ngir rek ngeen xam ci lu bëri dañ leen di bàyyi rek ngeen teewlu reportage bu Penda Badji ab tradition la bu it di di amal mu nekk ab symbole bu am solo lool bukkut di ab cérémonie d'initiation bu tax ba xalé góor yi mun jall ci adolescence dem ci adulte. bukkut boo ko déggee en fait lël la lël boo xam ne milieu joolaa yi ak soose yi ñoo def en général. c'est juste pour xam gor deug deug deug deug ñun bañ ko daan nettalee dañ daan wax gor bo matee gor bay tak jabar bo boo duggul bukkut doo mun a takk jabar loolu tax il faut nga dugg bukkut boo génnee ñu door la may jabar man mun naa wax civilisation yi moo changé parce que loolu bu njëkk kenn ñemewu ko woon kenn ñun bañ koy nettali sama tonton yi dañ ne ñoom ba ñuy takk jabar dañu duggoon ba pare door door la jabar mais loolu kenn ñemewu ko woon xëy na euh, nu ñuy gën di dem loolu tam mu am mais je crois pas loolu mu nekk loo xam ne léegi léegi gars yi di ko tere. ko concevoir parce que bu njëkk ba pour nga takk jabar il faut nga dugg la. boo am fukki at ak juróom ba ñaar fukki at. après nga waajal. maanaam dëkk bi yëpp ngay waajal seen doom yi déwén bu sobee dañuy daaneel leen ñu waajal ko bu ñu ko waajal ba waxtu bi jot nag xale yëpp nañu boole kër chef de quartier bi lañuy dajal xale yëpp ña fa la ñu nekk. bu njëkk festivité yi lee daam na am lu toll ci ñaar jàpp juróom benn weer léeg saay sax mu dem ba at ci yenn ci ay village mu doon nag lu amatul jamono yi lee date bi c'est pas n'importe dañuy ñëw rek jàpp dat bi loolu saaj village bi ñooy xool période bi pour ñu mun a wax la parce que mun nañ jàpp mun nañ toog ba ren ñu ne la dans 5 ans lañ koy def wala dans 10 ans date bi doo tëb tëb rek def ko non non non kenn du ko def na ñoom pa saaj yi ñooy toog même di nga gis benn saaj bu wax date bi dans dix ans moom sax du ko fekkee daanaka bukut moo di ciment culture joola ab pratique bu particulière ci ay rites initiatiques yu mu amal loole nag moo waral ba bu ñuy génn ci boobu lelal yi lépp initié dañ leen di amal ay fête yu am solo papa dina ko reyal nag yaay ji nag reyal ay xar para doo ko yóbbu xale ci àll bi te àll bi fa nekkee du ñu lekk lekk boo xamante bu bon ay yàpp la ñuy dundee foofu Eh, yàpp leen leen toogam la ñuy dundale boo ñu xam te léegi par nañu ñëw nañu boo xam te léegi dañuy war a simmi leneen di feetal yére bu gën a seet jëndal ko ko defal ko lépp ñi foo ñu feccal sa doom yi woyal ko di tagg sa maam yi taggal ko maamam yi ne góor ni lay mel a ajo a day a la yo ajo la tangono kat yo mu Bah Bah, baax baax yi ñu nemmeeku ci cérémonie d'initiation mené suko jéxal lolé nak mo waral ba yileb joola di ñaax askanu Sénégal ku ci nek ci et ni ba ngay yeewoo nga gën ko ñongal ngir adak ciosan mëna dañ ci mim réew non non ngir adak ciosan baña dañ ci mim diko bu Penda Badji dañuy woyal ak midi culture ubbi leen bi nu jagleele gan gi Midi Culture ganu xibaar yi. tey jii kon euh, ki ñuy dalal euh, Kati Ndiaye moo di Amadou euh, sekk Ndiaye. Amadou Seck Ndiaye nag ab juriste la bindkat waaye it poème maanaam taalifkat moom Amadou sekk Ndiaye féete loolu ci wàllum diine ji nag jot na génne lu toll ak ñaari recueil poème yu ci mel ni les falo ak Cosmos ganu bés baa Amadou Sek Ndiaye yow juriste nga de formation waye tamit euh, tu es écrivain poète ak chroniqueur yow génne nga ñaari euh, recueil de poèmes benn bi mu ngi tudd Cosmos benn bi mu ngi tudd Les Fallos euh, lu tax nga choisir ak lan mo la xir ci expression artistique bu melni poésie. Bo xolé sama ñaari recueil bu njëkk bi mi ngi tudd Les Fallos effectivement le second mi ngi tudd Cosmos Bo xolé li doon point comme ñaari recueil yoy yep moy que dañu am ay thèmes yu bari yo xamne dañ koy survoler.

màggaay boobu dafay ànd en même temps ak maturation thème maturation objectif yi nga xam dañ koy définir ci suñu mbind. dañuy sentir spiritualité bu bëri ci sa mbind tey jii ban part la spiritualité am ci sa expression artistique. Sa boy xool man spiritualité dafa bokk ci man dafa bokk ci mind mi nga xam ne dama koy bind. boo xoolee maa ngi juddoo ville bu ñuy wax ville de Touba. ville boobu dafa bokk ci forger sama personnalité ak forger ki nga xam ne la nek. donc bi ma am juróom-ñaari at fa laa dalee alxuraan mbosoobe màgg ci bindu Serigne Touba yi màgg si euh, tamit li nga xam ne moom mooy poésie euh, ésotérique yu maam Cheikh Ahmadou Bamba yi et puis l'islam tamit di diine bi nga xam ne tene ni ne diine bu am spiritualité la loolu dafay refléter ci surtout ci sama éducation ndax euh, ndax tey jii képp kuy bind war nga bind de telle sorte à que nit ku la liir war na ci mën a jànge dara te pour man njàng mënul jugee rek ci bind bu suufee ak bind boo xam ne daanaka du am fenn foo xam ne daf koy daf koy sës. yow poésie ngay def euh, gis nañ ko dañu am impression que poésie c'est dafa xaw a nekk parent pauvre ci scène euh, culturelle bi généralement hein. tey yow ban situation ngay def ci poésie euh, ci scène culturelle sénégalais bi. booy xool poésie ci genre yi nga xamante ne ni dañ ko tënk muy genre littéraire yi waa mooy maanaam genre yi nga xam ne dañ koy bindee poésie mom mo ci euh, art bi nga xamné mom lañu la gënoon jox fële temps temps yu njëkk ya xol 16e 18e siècle dañoo jàppoon ne roman ak théâtre ay genre secondaire lañu ñu woon poésie moy ah, moy genre littéraire bi nga xamné dafa compliqué dafa xawa soxé sooxe dëgg la euh, soxé bi mu soxé nak ñaar am na ci moy jamonoy révolution numérique et culturelle nit ñi amatuñu temps déchiffrer li nga xam dafa spirituel ba mu ëpp wala dafa compliqué ba mu ëpp bi aussi boo xol ba ci biir bi moy les états ont d'autres priorités manam bo déggee ñu naan sax euh, l'État est le protecteur des arts et des lettres dañuy xaw gis ne touti bobu mbaxane dañ koy xaw summi plus ñuy dem plus

cant ak ngërëm tamit ñeel bu baax a baax di sa prera doon dalal kon Amadou Seck Ndiaye ci biir ganu midi culture bi nu nar a jeexale ak wàllu musique wàllu musique la koy daal di tëjee ak Mody juuf moom nag gëjoon nañu ko gis ci seen musicale bu euh, Sénégal waaye jamono ji nag dellusiwaat na ak woy bu bees bu mu daal di dippee Sonona I don't know ñi dañoo am ba tax ñu beew ñi mi ngi noonu kon euh, Katy Ndiaye euh, cant ngërëm ñeel na la foofee la ni yem ci Midi Culture maa ngi lay jaajëfal Serigne Saliou di jaajëfal mbokk auditeurs yeeg internet ci ñu doon suivre ci subaak léegi di leen jox euh, dig daje suba incha ci beneen Midi Culture di jaajëfal bu baax a baax tamit Daouda Gueye mi nekkoon ci xarale gi Serigne Saliou sekk nekkoon ci kàddu gi production Kader loo digital bi Asine Pouy réalisation Dissa Prera lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg